ak mucc ci kaw xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yéen ñi jàkkaaroo ak ñun ñuy seetaan alhamdulillah di sant ñi nekk ci réew mi topp émission bi ànd ko ak Hann TV mu di jotaayu koor ak ña nga xamante ni nii ñoo ngi ci diaspora bi ànd ko ak ñun euh, ànd ak tamit jafe-jafe réew mi tey fu mu toll euh, alhamdulilah rabbil alamin ñu leen di wéttali ci Hann TV jotaayu koor euh, tey nag alhamdulilah jotaayu koor daf leen di indil la nga xamante ni ni moo di lu ama am solo moo di sarax sàkk sarax joxe ko jàppale ko sa mbokkum jullit lu ama am solo la ba sax alquran di ñu ko wax alquran di jàngale ci suratul baqara yàlla ne mathalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka mathali xabbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un alim sama borom dafay wax di joxe misaal di joxe ay tegtal ay misaal yu leer yoo xamante ni nii borom xel bu nekk su ko dégloo rek xam na ne misaal yi moom doy na sëkk suñu borom ne misaal nga xam ni dañuy dépense dañuy dépensé wu seen alal ci yoonu yàlla yàlla mooy joxe ko fu fu fu baax joxe ko fu foo xam ni yàlla gërëm na ko moo xam da jàppale sa mbokk jullit moo xam danga jàppale ñi tëdd ci hôpitaux yi feebar moo xam tey ni jamono bi jaxasoowee nit ñi am na ñoo xam ni ñoo ngi doon yëngu yëngootuñu ñu bàyyi leen xel bu baax nga daal di sàkk sarax sàkk lu am solo fekkee ne borom doole nga joxe lu am solo daal di koy dimbalee doomu aadama yi su fekkee ne am na ñu génnee azaka tamit ci weeru koor gi ñu daal di koy joxe jox ko doomu aadama yi ña nga xamante ni dañ ko yittewoo tey nag ñu bari woo nañ ko ci jamono jii ñu toll moo di jamono feebar mbas mi ni mu lëmbee jamono bi ñu bari seen activité daan na daan na gën a kii waaye fu mu ne dañu toog yàlla nee na ña nga xam ni dañuy dépensé wu seen alal ci yoonu yàlla sama borom ne ka mathali habbatin dafa mel ni kii joxe pepp maanaam dafa mel ni que masali xabbatin ka nga xamante ni dafa ji loolu borom euh, baykat yi xam nañ ko ku ji pepp benn pepp ci suuf xamatal ambatat pepp bi daal di euh, jur maanaam daal di génn ci pepp bi sabaa sanabil daal di meññet génnee sabaa sanabil juróom-ñaari gupp baykat yi ñoo koy xam gupp gu nekk fi kulli sumbulatin miatu habba gupp bu nekk am na téeméeri pepp xam nga juróom-ñaari gupp gupp bu nekk téeméeri pepp dafay daal di nekk juróom-ñaari téeméeri pepp ku joxe benn pepp maanaam ci misaal rek sama borom soo joxee dana loolu ëpp na ay mbiram yaatu na ci loolu mais pour jox la misaal ne soo joxee ci yoonu yàlla nu muy amee solo dafa mel ni benn pepp boo ji pepp bi daal di lay jural la nga xam ni dana nekk juróom-ñaar téeméeri pepp ku joxe benn dërëm ci yoonu yàlla am nga juróom-ñaar téeméeri dërëm kon nag ñu gaaw bu baax di joxe fi kulli sumbulati miatu habba wallahu nag yudaaifu liman yasha am na ñoo xam ne seen yàlla da leen di fulul fulul leen lu ëpp loolu kon daal yoonu yàlla joxe ci mbir mu am solo la ba borom xam-xam yi sax di wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit jàngal nañu na sàq sarax boo xam ni danga ko joxe ci secret kenn yëgu ko loolu dafay daal di fay meru suñu borom subhaanahu wa ta'ala borom xam-xam yi di wax ne sarax am na fukki mbir yoo xamante ni nii mbir yu am solo la juróom mbir yu njëkk ya fukki mbir soo ko xaajee juróom ya nee na fii ci àddina nga koy am yeneen juróom ya fële ci àllaaxira mu ngi la fay fekk fa nga koy fekk fekke ne juróomi mbir la ya nga xam ni fii ci àddina la bokk na boroom xam-xam yi nee na tathirul maal sa alal dafay set maanaam déchets yu ci nekkoon yëpp dafay sarax bi ngay joxe da koy raxas ba mu set wit alal gu set nga yor mooy tathirul maal mooy benn boobu fii la ci àddina beneen bi tathirul badani min addunubi wal amraad beneen bi mooy dafay setal sa yaram yow mii di saraxe dafay setal sa yaram ci mboolem bakkaar yu sew sewaan yi ngay laal da ko koy da lay setal soo joxee sarax da ko koy da la koy dindil ba mu set wicc waaye mboolem feebar yoo nga xam ne dafa jógoon pour ñëw mun a di dal sa kaw soo sàkkee sarax da ngay gis ne sarax bi day daal di jañ feebar yooyu moo tax fii ñu nekk nii tey nekk ci problème bii ñu ne nit ñi dañuy sàkk ay sarax di joxe suñu borom dana leen musal ci feebar bi incha allah rabbi yàlla yëkkatil ñu ko jox miskin yi seen wàll ña nga xam ne yittewoo nañu ko kon tathiru albadan min alzunubi wal amrad waaye tamit ñetteel ba sarax dafay def la nga xam ne raful balaa dafay yëkkati la nga xamante ni nii moo di natt bu la yàlla naroon teg natt goo xam ne da wàcc sa kaw soo daa saq sarax natt googu da gisa gis ne day daal kon sarax ñu xam ne lu am solo la rafu al balaa dafay daal di la nga xamante ni nii nattu la yu wàcc yu doon wàcc wala natt goo xam ni wàcc na du la yegg noonu la tamit feebar yu xamante ni feebar yu compliqué la su fekkee ne dafa jaxasoo wala wala dafa tas ci kaw réew mi wala dafa tas ci àddina yow su fekkee ne da ngay sàq sarax suñu borom mën naa def yow nga daal di mucc ci feebar yooyu waaye tamit sàq sarax ba tey ñeenteel ba fii ci àddina lim la fi jural dafay daal di nekk idxaalu sururi ala al masakin day daal di dugal mbégte ci masaakin yi maanaam ña nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw eh, coono googu ak métit googu ñuy àndal ak njàqare googu su fekkee ne da jël lu am solo jox ko nit ki ba mu mun a faj aajoom kooku jël nga xéewal jël nga mbégte dugal nga ko ci xolam te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul lu ëpp solo mukk nit ki jël eh, xéewal jël mbégte dugal ko ci xolu mbokk jullitam beneen bi kii sàkk sarax ba tey ci àddina ñi mooy juróomeel bi dafay nekk barakatun fil maali wa saatun fi rizq alal ji ko yàlla dénk yàlla da ko koy barkeelal alal gi day barkeel day dolleeku barkeel soo déggee mbir barkeel na mooy mbir mi saa su nekk dafay dolleeku mbir mi saa su nekk day dolleeku di jëm ci kaw li ngay joxe di saraxe ndax sama borom subhanahu wa taala am na ñaari malaaka yoo xam ni bés bu nekk seeni tudd lu ñuy li ñuy sàbbal mooy ka yàlla kii joxe yàlla na nga ko jox yàlla nga ko wuutalal kii te yàlla na ko waaw kon ka nga xamante ni nii mi ngi joxe saa su nekk malaaka yi ñoo ngi koy ñaanal allahuma aati munfiqan ah, ah, xalafan wa aati mumsikan talafan kii dul joxe yàlla na nga koy sànkal alalam waaye kii joxe yàlla na ko koy remplacer kon kuy saraxe yàlla dalay dollil sa alal dafay barkeel kon fii ci àddina day barkeel te wërsëg sa wërsëg dafay daal di nekk wërsëg gu yaatu kon loolu juróom yi ci àddina la day setal sa alal waaye sarax dafay setal sa yaram waaye nag sarax tamit dafay daal di dugal ci xolu masaakiini mbégte waaye sarax dangay gis ne dafay euh, nekk loo xamante ni nii baraka al barakatu fil alal ji dafay daal di barkeel yeneen juróomi mbir yi des mooy fële ci àllaaxira ñu ñun ñëpp a ko yittewoo nag képp koo xamante ne dafay saraxe ëllëg bis penc ci yàlla as sadaqatu sarax bi day doon la nga xamante ni nii zill lay doon zill moom mooy day doon ker day doon ker li saaxibiha kii doon saraxe sarax bi day daal di doon ker ca àllaaxira su fekkee ne nit ñi ñëw nañu mu tàng jër naaj gi ñu wàccee ko mbir mi tàng jër nit ñi daal di jàqare am da gis ne kanga doon gis ne day saraxe mbir mi sarax mi sarax bi day daal di ñëw nekk ci ci kawam mu doon ker moom du yëg tàngaay bi kooku ku doon sarax day am loolu yàlla yàlla boole ci ñooñu bokk na ci tamit yawmal qiyaam su nit ñi taxawee taxaw taxaw xaw ma gis nga soo gisee ñu tuddee yawmal qiyaam sax mooy que bés bi bésu taxaw la amul bésu noppal bésu taxawaay la nit ñi da ngay gis dañuy taxaw ba sonn bës bi ki doon saraxe da ngay gis suñu borom da koy oyofalal daal di koy atte atte bu gaaw mu daal di dem moom coono gi di ko yëg da ngay gis ne ba tey ci sarax sarax dafay diisal balance doomu aadama soo ñëwee yowmal qiyaam xam nga alquran dafa ne fa man yaamal mithqaala darratin xayran yarahu wa man yaamal mithqaala darratin charran yarahu ka nga xamante ni jëf na lu tolloog dar ci mbaax ci yiw suñu borom nee ne dana la ko wan ëllëg bis penc ci yàlla waaye tamit ku jëf lu tolloog pepp ci mbaax ci ci musiba ëllëg bis penc ci yàlla dina la ko wan su lay jéggal mu jéggal la kon mu doon noonu Euh, fi ñuy tëjee mooy ñaar yi des sarax dafay doo dafay jël nit ki su fekkee ne dañuy romb sirat benn mbir la boo xamante ni pont la ñëpp a ciy jaar alquran ne wa in minkum illa suñ ciy jaar am ñoo xam day mel ni ngelaw am ñoo xamante ni day mel ni gaawaayu gaawaayu gaawaayu fas waaye su fekkee ne dañ ciy gaaw ku doon saraxe moom dafay mel ni ngelaw day daal di ñëw rek daal di ëf dem yoonam waaye tamit beneen bi mooy fi ñuy tëjee képp koo xamante ni nii dafa doon saraxe ëllëg bispenc yàlla ca ajjana yàlla da koy yëkkatil ay darajaat dafay am ay daraja daraja mooy ay garaat yu mag ca àjjana àjjana bii ñu yëkkati ko yóbbu ko ci beneen ay àjjana yu day dem di yéeg ci àjjana ci darajaat yu gën a rëy ci ah, kon nag mbokk yi ñu xam ne sarax am na solo juróom ci àddina juróom ca àllaaxira képp koo xamante ni nii loo yor abul ah, xaar ba ma ne damay yor ba woomal déedéet loo yor rek mën nga cee sàq sarax daal di koy joxe yal na yàlla nangul ñu nangul leen nangul mbooleem jullit ñuy koor kon jotaayu koor moo ñëwoon ak yéen ak Hann TV ñu taxaw fa incha allahu rabbi ba jotaay gi di ñëw ñu am yu ñu fàttaliwaat incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa